yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg euh, seen chaîne télé bu njëkk ci wàllu caada euh, di la 2STV di am mbégte lool nag ak bànneex euh, ci dellu siwaat fas yéene àndaat ak seen émission kër gi ñu koy defee saa su ne xanaa dellu santaat yàlla bu baax moom mi ñu kàttanal ba ñu ñëw teew. Eh, julli selmal ci sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari waajur bu wér a wér gërëm sunu wasila waaye gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa su yéen ngi fësal seen cofeel eh, jëmale ko ci ñun doore ko nag eh, ci maladie tëdd ci hôpitaux yi ak ñuy wayale seen i jàngoro ñëpp ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñu delluwaat ci seen i activité ñi caabi féete ginnaaw nekk ci bërëbu yarukaay yi ñu ñaanal leen yàlla génne leen fa waaye dara bañ leen fa dugalati saa su ne nag xel sunu dem ci way dawlu yi ñu leen ñaanal yàlla attaleen cërmande yërmandeem jégal leen seen i bakkaar leen ci àjjana yi gën a kawe ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kilifa diine yëpp ñu nuy leen ziyaar leen ñaanal leen yàlla yàggal leen fi màggal gii nga xamante ni moom la ñu dëgmal ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla euh, sunu xalif général bi fi nekk yàlla na ko teewe ay at yu baree baree baree bari yàlla def ñu yegg ceeg jàmm ak salaam buñ ci yeggee itam fekkee ko yàlla nañ ko tal buñ ko talee yàlla nañ ci mën dara te luñ fa jàmm yàlla bu ne yàlla na ko yàlla nangu ñaanal ko nag bépp xalif général boo xamante ni yaa ngi ci réew mi yàlla bàyyi la fi ndax nag wax naa leen fu ci waay mën a dem rek xam nga ni la muy yëngu ci askan wi ak Sénégal am na solo kon dañ leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fii suñu kilifa aada itam naka noonu ñu ñaanal leen jàmm sutura xewal yàlla tappe xel yi ñu nekk benn waaye ànd ak lu mën a xew itam yàlla sottal projet yi def jàmm ci réew mi ba ki nga xamante ni moo jàkkaarloog man jamono bii ci biir réew mi gannaaw ba ma ko nuyoo ba noppi euh, ñu jàkkaarloog seen télévision 2STV mën a am ci njëriñ yàlla na ko yàlla def yàlla sàmm ñu yiir ñu def jàmm ci réew mi ñi ñuy ko ci itam ci 88 point 4 ni ma ko waxee comme ku mel ni Badou Sakho Nanding euh, toj Sénégal euh, wax dëgg yàlla day ànd ak ñun saa su ne ci 88 point 4 ndax bëggul dara rëcc ko te saa su ne dafay nekk en mouvement kon ñu ngi leen di nuyu di nuyu itam mbaa bitim réew di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla yàlla yokk sutura gi yàlla na yàlla yokk xéewal yi yàlla na yàlla sàmm leen itam ba ñu dellu siwaat fi nga xamante ni mooy Sénégal ñu bàyyi fi seenu njaboot Euh, dellu siwaat nag alxames bi xam ngeen ne ni koy defee saa su ne ma ànd ak sama doom sama rak sama lépp muy njaw ma koddu sàmb ku ma yéene jàmm waaye nag ni ma ko waxee rek dañ naan yéene néeg la borom a cay fanaan waaye léeg nga fanaan ci ak doom ji ca yoon nam nekkul wala jabar wala jëkkër waaye man li ma jàpp mooy <laughs> yéene daal lanc la boo lanc ci sab lex <laughs> yow kese yaa koy wanaasu sa bopp kenn du la ci jàppale kon yéene jooju mu am ci man yàlla na ko yàlla delloo ci moom ci barki yonent bi njaw njaw tàng na de tàng na waaw ay ku may wutal ëppukaay. <laughs> ma ne ko tàng na de. yónni naa la ëppukaay Tiwaawan ni ba tàyyi nga bañ. dinaa la ci man yu tubaab yi sinon yi du ko jënd yu ñaar fukki laa bëgg. dinaa la ci indi yooyu sax xam nga dafa am baraka. dafa am baraka bu ci xam nga yooyu ñuy ràbbi xiis. waaw dafa am solo am na am na lu muy def ci nit. waaw ah xam nga eh, eh, réew moo gis eh, garab ya ya nga xam ne moo ne ci réew ma mooy faj waa réew ma. te xamuñu ko ñun. te xamuñu ko. looloo tax mu am solo. ay ca nuyoo baa <laughs> yaay maa ngi lay nuyu di jégalu mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew. di nuyu bu baax a baax nag sama yaay soxna Xadi Sam di ko ñaanal yàlla wér ak yaay yëpp di nuyu waa Kër Saalum Bata Gama fekk baax. di nuyu xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour di ko ziar ak njabootu maam Seydi xaj Hadj Malick yëpp. nuyu mboolem ëttu këru diine yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax baax. di ziar nag euh, sama yaay ji moom itamit di ñaan yàlla yàlla defal ko wér. amiin ak euh, euh, yaay yëpp. xam nga soxna Mbaye jigéen yëpp yaay lañu. Mhm. waa jigéen yëpp yaay lañu ndax. seen yéen moo toll noonu. Mhm. waaw seen yéen moo toll noonu. Mhm. ko xam responsabilité bi yàlla jël teg ko ci mbagu jigéen. ku ko xam doo fitnaal jigéen. dëgg la. waxuma la nga fekk ko ba ca biir néegam violé ko jël bakkanam loolu ku xam responsabilité jigéen ak fi ko yàlla teg ak ni mu ko ñoŋale. Mm-hmm. loolu ku ko xam boobu ñaawteef doo ko def. dëgg la te nag soxna Mbaye. Mm. réew mii war nañ ci am taxaw seetlu. ah yéeme na de. ndax lii xew léegi kenn xamatul lu mu doon. Kër Massar de démb rek amaat na sax benn kooku nag mi ngi ci diggante dund ak dee ndax dañ koo jam paaka benn agent de la santé. xam nga daal yéeme na xam nga loolu loolu yi tamit euh, état yi tamit dañ ko ci interpellé. Mhm. pour ñu gën a yokk sécurité bi parce que Kër Massar bokk na ci wax dëgg yàlla dëkk yi nga xamante ni fi mu nekk nii ku fa nekk boo tëddee doo nelaw. Mhm. ndax la fay xew ci yenn ñaawte bi fépp sax de njaw waaw njaw fépp fi nekk ñëpp a tiit non ñëpp a tiit ñëpp a tiit moom loolu moom hmm. ki ko wax ku ko waxul dëgg la insécurité bi am moom ci réew bi dëgg dëgg doy na waar hmm. ndax néeg euh, euh, nit këram la am néegam la am hmm. mais soo demee ba sa biir néeg amatoo ba sécurité mais bu boobaa nag problème am na kon nag euh, ñu ngi ñaan état ñu gën a renforcer sécurité bi gën a sécuriser sénégalais yi parce que itamit réew mi laaj na ko bu ko defee loolu nañ ci bàyyi xel te suñu boroom mi nga xam ne moo bindu doomu aadama moo ëpp yërmande ñëpp. dëgg la ndax moo bindu doomu aadama bind yërmande. Mm-hmm. moom mi nga xam ne nag moo bind dem ba ni nit ki suñu ku jël bakkanam nañu ko jël war ngaa xam ne kon jox na doomu aadama àq. Mm-hmm. jox ko dayoo. Mm-hmm. ba kenn bañ a fay dundam. parce que dama mës a dégg ci Serigne Mansour si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Almaktoum. ndeysaan. mu ni li ñuy tuddee faat yàllaa ko moom. faat waaw. yàlla moom moom rey yàllaa moom rey. dëgg la ndax da toog ak nit ki di waxtaan ak moom. Mm. muy wax ak yow di wax ak yow bu mujj mu ne nemm. Mm-hmm. mu ne moo tax rayam rafet. mais bu ñu nee doomu aadama dafa rey rek mu ñaaw ndax yat lay dóor wala mu jam paaka mbaa mu wala wala wala mu jam la balu fetal. moo tax rayinam ñaaw parce que amu ci droit moo tax waxtu woo dégg ñu ni diw faat na moroomu doomu aadamaam rek mu mm, ñaaw mu ñaaw waaw parce que façon bi mu koy defee dafay ànd ak violence boo xamante ni faroo ne du ko xam loolu mooy tax muy ñaaw moo tax loolu mu nekk loo xam ne nañu ko bàyyi suñu borom mm-hmm. parce dafa am benn rëmz bu ci nekk boo xam ne moom moo ko xam mm-hmm. Mm-hmm. Euh, doomu aadama ku euh. xam fi ko yàlla teg doo fay dundam. te njaw doguma la. Mhm. mais da nga wax sànq ne sunu boroom moo bind yërmande bind doomu aadama. waaw mu wax ne ku rey nañ la rey. Mhm. mais mais ni ma déggee ni ñuy waxtaane sax. am na procédure bu ñuy jaar ba xam ndax ki rey moo ko tey. Mhm. moo ko sabablu. lu tax mu rey ba pare ñu soog a atte woon ne nañ ko rey. donc am na fu mu du rek ku rey nañ la xam nga man nga génn ak sa oto fii ci mbedd mi. ne rek laal benn xale mu dee. foofu yaakaar naa ni taxul suñu borom di wax ne. ku rey nañ la rey. mais dafa am anam boo xamante ni moom ngay def ba war a tax boo reyee ñu rey la pour rey gi arrêté. am déet. waaw xam nga ku rey nañ la rey. Hmm. soo gisee suñu borom wax ko. Hmm. mooy li ma la wax léegi bay bañ ku fay dund doomu aadama moo tax. Hmm. wala ku mere nit rek daal di jël ngànnaay jëflante ak moom bakkanam yem. mbaa nga dogaale ko soxla dara ci moom. bañ ne ko ba ci jam jamu paaka dañu koy nat ba fi jam-jam bi ñëw ñu jam la lu ni toll pour wax la ni la doomu aadama li wolof di léem ni yaram benn la koo ci dóor mu metti mhm. mais pour pourquoi nga mën a fekk sa moroomam doomu aadama tooñ ko rek ko lu waa ngi fi su ngeen amee problème. ba pare am bàjjan bu nekk ci réew mi. di casse droit de l'homme mort bi moom du l'homme non non droit de l'homme moom dama defe ni ñi nga xam ne ñoom ñoo koy wax dañoo xamul droit de l'homme moom mooy lan. Mm. parce que man damay gis yi xew ci réew mi yëpp ci yu metti yi. Mm. dégguma leen ci ñu wax bi ci desit tamit mooy suñu mbokk politique yi. Mm-hmm. li li mu leen jaral pour ñu laaj réew mi ba kenn dootul dégg mais na leen ko jaral pour ñu def benn politique. boo xamante ni dina jëm ci loolu. ci wàllu sécurité ci wàllu sécurité. Mm-hmm. dem benn politique pour sensibiliser nit ñi. Mm-hmm. parce que yi tamit politique du kaay jox leen ma rek. parce que waxtu nekk man may faral di wax ne tey ngeen dégg ba rek jarul xuloo jarul xeex. déedéet. réew mi ku mu ñor di nga teg programme bu nit ñi gëm. tey ma dakkal fi daal faatug nit ki. waaw kooku jar na xuloo jar na xeex jamono bi ñu toll. mais euh, yii xew yëpp daanaka man maa ngi déglu. politique yëpp seen politique yëpp maa ngi leen di déglu. Mm, mm, mm. mais yi xew doo dégg kenn wala dañ koy raay dañuy dem ba wax seen soxla ba pare soog soog cee taxaw ñaawlu. dëgg la ana assemblée nationale bi. li tax ñu ñu fal leen pour ñuy daje fa ñuy càmbare yëfi réew mi loolu nañ ko fa dugal. parce que gis nga am na loo xam ne soxla mbay bala nga koo mën a xalaat wala nga waajal ko day fekk nga tal ko. dëgg la gis nga la Serigne Abdoul Ahad Mbacké doon wax ni lu waay di def ba jàmm toxu di ko fa ne tegg ba jàmm ñëw. ñëw dañoo toll ci jamono boo xam ne nan leen woo jàmm. Mm. def ko ci réew mi. Mm. parce que bu jàmm amul doo tala naan ataaye. déedéet doo tala def leneen. déedéet kon nag doomu aadama yi nañ leen sécuriser surtout jigéen ñi. Mm. ñu protéger leen. parce que dafa am benn euh, benn droit bu mag bu leen lislaam jox. Mm-hmm. boo xamee ni waruñu seetaan jonge yi ak saay saay si ñëw di ruube loolu. dëgg la te wax dëgg yàlla seen. Euh, taxawaay rafet na ci réew mi. Mhm. ndax jàmbaar la ndax. wallaay mooy yaay. wallaay wallaay koo xamante ñu ngi lay tudd ci réew mi rek jigéen na la jur. wallaay ndeysaan kon nag ñooñu war nañ leen protéger ñu yërëm leen en tout cas ñu ngi jaale soxna soosu faatu ci Kër Massar. wallaay di ko ñaawlu nag. tey jii lañ koy denc ca euh, Kañabo ca euh, la. ci Casamance bi la bokk tey jii lañ koy denc incha allahu taala. wax dëgg ñaawlu di. Mm. jaal njabootam yëpp. Mm. wax dëgg yàlla lu metti la. Mm. waaw lu metti la ndax tamit jigéen amul doole déedéet nga nga sàkku ko ba pare jël bakkanam loolu lu ni ñaawee amul ci réew mu mel ni Sénégal. mais man dama ko jàppee nag eh, nag eh, eh, démb maa ngi koy wax man leen ñàkk sago euh, bokk na ci li nga xamante ni moom moo tax li am di wax na rek euh, mbokk yi mën nañu participer ci émission bi ci 88 628 14 13. ñu mën a rotal seen xalaat ci li ñu yëkkati tey wax naa leen ko octobre rose la ñu nekk semaine bi yëpp dañ ko jël jagleel ko jigéen ñi ci wàllu jàngoro yi ak góor ñi niñ leen di abandonné waaye am ko mu feebar nga teg ko ne ba mu dee ba wow kon yóbbaale aw mar yóbbaale jaaxle ak wéetaay yooyu yëpp dafay dugg ci cadre bi parce que nag taxawu la ñu wax te malade yi nga xamante ni ñooy dund wàllu cancer dañu soxla taxawu lool lool lool loolu moo tax incha allah njaw dinañ ci waxtaan ak moom euh, ci deuxième partie bi première partie bi na xam ngeen ne lu ay di njàmbat te nag Sénégal fi mu toll nii jaadu na lu waay ubbi lu ne ubbee ko naka la ñuy def ba mën a am kaaraange naka la ñuy def ba delloo si xelu nit ñi waaye naka la ñuy def itam ba nit ñi am sago lépp nag ci jeudi bi tey ñu ànd ko ak waa HD industrie mi ñu indil euh, gaamu madaar bu mucc ay bi incha allah dinañ ci ñëw ci seen 15 minutes set wecc yi ñuy dalal ganuk madaar gi incha allah waaye itam ku dugg ci émission bi jaar ci 88 628 14 13 na la yëg ne rek am na neexal bu duun boo xamante ni mu ngi lay xaar nga ànd ko ak waa service euh, euh, commercial njaw ñàkk sago laa doon wax mhm. xam nga jigéen ci wàllu boppam nga ñëw di ko indil ay fauteuil parce que dafa doon meeting. delloo si fa tey ñëw indi ko yem ci moom mu sangu ba noppi tënju nga ñàkk sago ba ne naa ko sàkku xëy na sàkku googa sax moo la jural ci ne ma ngay yuuxu eh, ñu ne naa ko xoj bopp doomu aadama dafa am solo xam nga ki ñu jëkk a jàpp rek moom dafa leeral yëpp maa téye woon tànk yi waaye di woo ko doon sàkku xoj ko ba mu dee. te la feeñal kee dana feeñal ke ca des. donc ñàkk sago ba jàkkaarloog jigéen mu attaan ci moom lenn li lan moo koy waral. waaw xam nga loolu lépp nag ñàkk yar sa sa euh, xaw nu ma ko mën a. topp sa nafsu la sa nafsu ñàkk yar sa psychologie xam nga nit. Euh, soxna mbay feebar yi dafa bari. Mm-hmm. xam nga am na ñoo xamante ni ni ngay gisee nit ki feebar. Euh, feebaru yaram. waaw kii feebar feebaru xel. Mm-hmm. ñoo xam ne noonu la ñuy feebare ci wàllu jigéen. am na mm-hmm. ñoo xam ne ku ñu gis nopp ko dootuñu am contrôle ci seen bopp. loolu dafa am a maanaam a yar sa yar sa tabia Mm-hmm. ba dara du la ébranlé même soxna si nga nekk ci biir néeg bi am na fu ngeen di toll nga mën a deseti sa dignité kooku yar la xamuloo ak tolluwaay. Mm-hmm. ah am na ñoo xamante ni yar nañ seen bopp ba bu jigéen ñu baal ma ci baat bi jigéen bu defoon yaramu nañ ci seen kanam bu leen yëngal loolu nag. Euh, travail la boo xamante ni nit moo koy def ci boppam xàmmee li nga moom ak li ñu la boole ak li ñëpp bokk. Mm-hmm. loolu il faut que nit ki xam ko. Mm. beneen bi ci des it tamit mooy jigéen dafa mat a wattu. wattu ci waaw nga garder sa bopp. Mm. garder sa dignité ba liy yëngatu ci yow boo janu jigéen nga am force mënu ko téye. Mm-hmm. boo ko deful rek bis bu nekk mën na la dugal ci kàmm. parce que mm. mag ñi buñ lay dénk dañ lay dénk ñaar. dañu lay wax ne la wattandikul jigéen ak xaalis. Mm-hmm. parce que mën na la dugal ci kàmm. lu yàqu lu ko yàq Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al mi nga xam ni. Euh, professeur wu jamono la nit mën na ko wedd mais jamono du ko weddi. dëgg la dafa ma sa wax ne ñett rek mooy gunge nit doomu aadama bi. Mhm. ñu ne ko ñett yi yan la. mu na ngeen wattandiku di dégg peru fer fu ngeen toll. parce que mhm. kuy dégg peru fer foo toll doo dégg peru kurus. mu ñett yi gunge ñu ne ko ñett yan la mu ni daara jigéen xaalis. mu ne bu daara jiitoo ñu ne ko waaw mu ni xaalis mën naa ñëw jigéen mën naa ñëw. Mhm. parce que dina fekk daara. defar na la construire li mu bëgg yëpp ci wàllu àdduna defar la defar sa jikko. Mm-hmm. ba doo mélanger daara xaalis ak jigéen. dëgg la. ñu ne ko waaw bu daara jiituwul nag mu ne ah bu xaalis jiitoo de jigéen mën naa ñëw mais daara dalay daw. Mm-hmm. bu ko defee ngay dof bu yàlla jox wërsëg rek ngay nañax nañaxi dafa ne koo gis sa poos mën na ko jënd. te fekk na am na ñoo xamante ni loo mën a am ci àddina bi seen dignité safu leen safu leen dëgg la ñu ne ko waaw kon bu jigéen jiitoo xaalis ñëwul daara ñëwul nu nit ki di def mu ni mm. lépp yàqu lépp yàqu waaw jigéen bu jiitoo lépp yàqu moo tax mu teg ca ni boo dee ndaw am junni am jot alku mu ne boo maasee sa jamono mu sacrifier la bu la rawee écrasé la est-ce lu mat a bàyyi xel la si Cheikh Ahmed si almaktu lépp wax nanu ko. ndeysaan lépp wax nanu ko moo mhm. tax. Euh, ñuy ñuy ñuy muy muy wax doomu aadama yi ba tey ni leen ngeen di wottandiku mhm. parce que li ñuy tudde njaaloo mhm. mu ni sunu borom daf la wax laa taqrubu zina bu ko jege moo tax nee na amul joto xaraamal ko sax loo jegewul kay doo ko laal nee na amul joto xaraamal ko dëgg la nee na ñàkk fayda gi la yàlla xamul nu nu koy def moom la punir moo tax mu ne nañ ko xaraamal. ñàkk fayda gi mooy lan. kilo jurul jëndu la takku ci faratas yàlla ak sunu muhammad man laa euh, ñu baal ma ci kàddu gi sumile ba nga mel na sa la yaay indee woon ci àdduna mu hmm. jëfandikoo la nee na ñàkk fayda googu la yàlla xamul nu mu koy def. te diggante nit ki ak nit li ñuy tuddee bànneex dafa dafa nekk loo xamante ni lu day waar la soxna Mbaye hmm, hmm, mais foofu euh, bu fa nit tolloo. dafay nekk dafay dafay dem ba fàtte lu bari ci àdduna. day doon leneen. moo waral bu ci nit ki pare ci soxnaam ñu ni ko demal sangu ji. parce tilim tilim boobu. ak fi nga xam ne fa la yàlla war a na ne nga faf ko fàtte ñu ne la dawal sangu ji ñëw dellu siwaat bokkaat ci biir pour nga mën a bokkaat ci daa'iratul imaan mën a jaroog sa borom moo tax yooyu yëpp nit ki di ko war a bàyyi xel soxna Mbaye. Mm-hmm. pour mën a xam dundam fan la koy jaaral yar bakkenam daal yar bakkanam surtout ku góor. waaw surtout góor. mais ci côté yar bakkan boobu comme dañu nekk ak ñoo xamante ni xëy na yaratuñu seen bakken mm-hmm. ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy ay jigéen itam am na lu ñu war. waaw. am na lu ñu war. Mm-hmm. comme comme ñi ñu nekkal léeg dañuy jékki-jékki doon mala. du ñu xàmmee ndax kii service laa ko war a rendre dem sama yoon. lewu ma daganu ma ma bàyyi ko fa mën naa cee def njombe goo xamante ni waxuma la tasaaroo ci Sénégal waaye day tasaaroo ci àdduna mhm. ndax ñii li ñu def tasaaroo na ci àddina mhm. ñu di la wër nga dëkkee dang dang dëkkee tëju suñ la nee nuus jàpp yow daf lay leer ne bu ñu la tëjee vingt ans boo amee bu fekkente ni ku am vingt ans nga wala ku am trente ans ñu tëj la vingt ans muy cinquante ans mhm. li lay dese lan la sa àdduna lu ci bari yaa ngi ko passé ci kaso bi kon bu fekkente ne dem na ba xoolul loolu lépp. Hmm. man mii jigéen ma xool sama bopp nag. Hmm. waa xam nga ñuy éviter. Hmm. sangu tënjoo sarbet ci ay inconnu. dëgg la même bu dee koo xam ci biir kër gi la muy frère. muy rakki jëkkër. muy jarbaatu jëkkër. muy dëkkandoo boo bokkal luyaas. sangal sa yaram. parce nag. comme olof Ndiaye nee na sébu bu taataak boor bu ne lañ koy taale gisatuñu lu ñu xam mhm. faaw dinañu wax pour kenn ku ci nekk war a mën a jéem bokk ñu mën a mucc mhm. jigéen ñi nañ ci bàyyi xel bu baax côté boobu njaw yaakaar naa bëgg naa nga dollil ma ci dara xam nga soxna Mbaye bu ñu nee diw na na nga am bàmmeelu biir mhm. ñu ci ba ñu ci bari dañuy jàpp ni jàpp sàllaama ña tax mais bàmmeelu biir mi ngi ci liy yëngatu ci yow ci bànneex te man laa yóbbee bànneexu ñetti minute gàcc giiru dund mhm. nga am force mën ko téye mhm. waa am force boobu mhm. ba euh, xamee xamee li nga war a jël ak li nga war a tëjee beneen bi ci des mooy wax nga lu am solo. mooy bokk na ci tamit li nga xam ne dina indi jëy yi. mooy jigéen ñi ñu ci bari seen cër dañ ko ñoŋalatul. parce que tamit provocation la. parce que fekk daba mi nga xam ni moom yar na boppam ba dara mënu ko mënu ko mënu ko taxa a ébranlé bokkul ak njaw ma kodd mi nga xamante ni tey bu gisee jigéen joo xam ni mbagam feeñ na nii rek mu am lu mu yëg. Mm. nit ñi bokk ñu de soxna mbay déedéet bokkuñu am na góor goo xam ne bu ko jigéen rombee sax ak benn bind bi rek mu tàqale ko sagom complètement mais kooku bu janoog yow nga. jël dépense am dundu weeram. lépp jox ko ko wëlbatiku di laayi jabaram ak njabootam tey débrouillé. jeex na mais kooku xam nga ni ndegam da koy romb rek ak bind bu jekk. Mm. mu ñàkk sagom. waxuma laa koo xam ne da nga boo sangoo ba génn tënju tënjoo sarbet te xam nga tënjoo ay sarbet ak yooyu da soxna Mbaye lu lu ñu baal ñu ci télé la ñëg mais lu dangereux la ci entre góor ak jigéen sarbet dafa grave ci entre góor ak jigéen parce que jigéen dafa am nu ko yàlla binde mhm. góor am na ko yàlla bindee am na mhm. noo xam ne bu ni jigéen taxawee rek mais góor gi day am lu mu lu mu yëg yàlla bu mu nekk jigéen joo xam ne nag jongama la mhm. ba ngay tàqal ak sa sago doo ko yëg. déedéet def safaan boo xamante ne dafa gaaw wallaahi wallaahi bu fekk na euh, da ngay waaru. sarbet képp ko waral. waaw sarbet rek ko waral. ñeent téeméer juróom benn téeméer. <laughs> kon nag euh, soxna Mbaye war nañ ci bàyyi xel bu baax. doy na waar doy na waar suñu mbokku jigéen ñi. non il waxtaan parce que njaw émission kër gi la wax. dëgg la il faut dañuy wax nit ñi lu nekk. <laughs> offensé wu ñu kenn dama wax ne saytaane <laughs> fi mu ne dafa bari doole dafa mel ni mbokk ngi ci ligne bi Ousmane bu ñu ma mënee yokkal tonalité bi tuuti parce que dama ko for tuuti rek mbokk allo salaamaaleykum salaam na ngeen fanaane ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah Adja Mbaye maa ngi lay nuyu man la Ndeye Seynabou sa xarit Ndeye Seynabou sama xarit waaw <laughs> Ndeye nga may woowe maa ngi lay wooy fii Dakar woowoon naa maa la fii woo léeg wax nga dëgg wax nga dëgg soxna Ndeye waaw ana Ndiaw Makondo mbaa mi ngi ci jàmm. mi ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah. alhamdulilah. ah fi nekk nii de suñu dëkk bi li fi xew. Hmm. lu ñu war a seetaan. dëgg la. ndax fi mu nekk nii boo mënee wax mooy. Hmm. kenn nekkatul en sécurité. dëgg la. Euh, xale yu ndaw yi gaaw nañ ci paaka. Hmm. xol yi gaaw na yëngatu. tali bi oto yi daw sax chauffeur yi ci seen bopp dañuy hmm. gaare di reyante dëgg la di xeexoo hmm. te am na ci lu bëri loo xamante ne ñàkk gi bokk na ci dëgg la ñàkk gi hmm. Adja Mbayang bokk na ci doy na waax parce que da xool borom kër nga xëy loo bàyyi sa kër sax amoo ko yëkkatil kàddu gi waaw ngay dund dund wereyaan <coughs> ndaxte boo xëyee la nga am da nga koy joxe bu bësatee nga daw ak wuti. dëgg la. jigéen ñi talatuñoo toog ci kër yi sax ba yar xale yi. Mhm. dëkk bi metti torop. torop. ñuy jouer xale yi di fo di euh, carte carte xaalis. Mhm. da ngay xool ci garage yu mécanique yi man lu ma teg sama bët laa lay wax. waaw. bu ñu liggéeyee ba nga xamante ni dem ay une jëm kii. Mhm. ña ngay teg ay fukki dërëm ak i cent franc di carte xaalis. loolu fu mu jëmee sunuy xale. fan la jëme suñuy xale. yàlla nañ ci yàlla musal. góor ñi ci seen bopp li ñu mën ñu koy def jigéen ñi tamit li ñu mën ñu ngi koy def. dëgg la. waaye dafa egg foo xamante ni jamono tey dafa méttee méttee métti ba métteetul Adja Mbayang. dëgg la. xiif gi mi ngi ci sunu biir dëkk bi. fees fi del. dama jëlale ay ay banlieue ñii ñuy wax. Mm. waaye gis nga ci biir Ndakaaru Njaay gii. ci ay gox yi ay gox yi nga xam ne moo tax ñuy wax gox naan diwa nga dëkk sàngam ku mel ni ngeen baal ma ci euh, euh, dëkk bi ay Sacré-Cœur ci Sicap ak Liberté ci sëkki lu ko wër xiif gu métte métte métti Adja Mbaye moo nekk ci kër yi. ci gis loolu yëngal na lu bari mbay ci suñu réew nangam ba nga yaakaar ne gundaandaat na. laa ilaha illallah ci erreur. woo mbayang sun dëkk bi metti nag gis nga loolu yëpp nag. ndeysaan. gis nga rey gu bari géeg loolu yëpp loolu yëpp bokk na ci. bokk na ci bokk na ci. ndax peuple bu demee tey ji ba bu añee du reer. Mm. bu yeewoo ndekki dañ koy lijjanti. Mm. tey ku am ñaari doom jaaxle nga yàlla bu muy doom yu ndaw. wallahi <coughs> mbay nga affaire bi war nañ ko seetaat. war nañ ko seetaat. ñi ñu war a wax ñi war a wax nañu wax. wallahi soxna Ndeye. ñi nga xam ne nañoo jiitu nañu am yërmande. ndeysaan am na ci ñoo xam ne tey jii ñu ngi am lu dul jeex waaye xooluñu kenn toppatoo ñu kenn dimbali kenn amuñu benn yërmaan dimbali wuñu mbokk ni kenn dimbali wuñu mbokk dimbali wuñu xarit dimbaliwuñu dëkkandoo dëgg la te du jeex ci suñu dëkk mi mbayang nañu seetaat affaire bi dëkk bu demee ba yërmaande amatu fa hmm. yu mel nii moo fay am am na solo te ñu ngi nii jublu ci ay échéances yoo xamante ne nii hmm. ñi dul gor day dinañ jaay seen ngor dëgg la waaye ñiy gor duñu ñu te fa ñu tegoon ten tànk lañ koy teg wallahi wallahi mbayang ak sax faak dama la naan dinañ gise te bu ñu gisee dinañ waxtaan lu bari dina ma neex xam naa un jour dinaa ñëw de euh, kii deux heures waaw xam après émission bi rek dinaa ñëw foofu insha allah ñu gisal incha allah baax na jërëjëf merci beaucoup bul coupé bàyyil foofu sa numéro sa li nga wax dafa solo waaw moom foog nga yónnee ma may la ci neexal yu duun yi nga xamante ni waa Madaar ñoo koy yónnee. jërëjëf Thiam merci beaucoup. Eh, na ma gaa yi jëlal numéro am su ko defee rek mu yónnee daal di jël benn pañeem ñu yebal ko ci ay bagages ba mu baax ndax macha allah nii la émission kër gi la eh, te seen waxtaan am na solo ñu koy remercier bu baax a baax di wax ne rek eh, buntu baa ngi noonu def leen ni moom ngeen root seen xalaat réew mi fi mu toll waaye nag octobre rose ñu nekk ca wàllu taxaw geeg jàppale gi dinañ ci ñëw incha allah parce que njaw dafa toll foo xamante ni fu am solo la donc dinañ ci waxtaan jigéen ñi nañuy gën a fekk seen bopp mm-hmm. wax da ngay dégg ne ab jàmbur la bu jógee ci àll ba waaye la ci ëpp ca la koy def léeg sax dina doon rakki jëkkër ji ci biir kër gi <laughs> jarbaatu jëkkër bi ci biir kër gi xam nga dañuy wax ne ponkal bu dabee naaru góor ca doxin wala dëgg xam nga sa jarbaatu jëkkër bu amee fitu abordé la mm-hmm. dangaa tooy sama ndijaay kay mi ngi ci dara loo ko wan ba mu xam ne dangaa tooy mm-hmm. xam nga noo mel ci kanamam mm-hmm. gis nga booy booy dem di sa sunu mag ñi daan nañ daan nañ yor sarbet wala ñu yor malikaanu ñaari meetar waaye nag day fekk bu ñuy sangu ji mm-hmm. da nga daan gis buntub duus ba da ngay gis ñu wekki ca seen mbubb wekki ca sër ba ñuy oddoo mm-hmm. suñu paree tënju commencé tënju <coughs> tënju fii mm-hmm. mu wàcc ba ci suuf léeg-léeg sax ñu jël seen garam bu teg ci wala ñu jël musóor teg ci romb daa di dugg seen biir douche seen biir nekk sol seen yére waaye jël sa sarbet bu yem fii nga xam ni ñeenti téeméer lay jar ma nga ca kaw oom yàgg yëpp nekk ci biti nga ne biir néeg bi dafa tàng sangu naa ba noppi naa jël sama chaise teg ci tàmbalee tocc ko kooku ku la attaqué. Ah, may nga ko buntu de. yaa eh, am nga ci part de responsabilité bu mag a mag njaw kon côté boobu nañ ci bàyyi xel. am nga ci part de responsabilité. Mm, mm. Euh, ma profité ci nuyu nag euh, sunu xarit. Mm. di suñu waa di Badou Sakho toj Sénégal. waa Kër Nandi waa Kër Nandi ñu. Kër Ndeye Anne mais Ndeye nag mooy toj Sénégal temps yi. déedéet kay waaw. soxna Ndeye Anne ñu ngi koy nuyu. ak Fama maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. di nuyu sama cousin Moustapha Samb ci Italie mi ngi ñuy suivre. saan ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu njabootam yëpp. jërëjëf euh, soxna Mbaye. am na ku nekk lii ci ligne bi baal ma njaw ne alo alo alo allo salaamaaleykum. maaleykum maa ngi lay nuyu noo tudd ak fa ñuy woowee. oh ah, dagg na ñu ngi koy xaarandiwaat 88 628 14 13. ma bàyyi la nga dellu fa nga nekkoon. waaw euh, wax nga lu am solo. xam nga mm. euh, bari na jigéen gu ñu attaqué moo may bund. Mm-hmm. gis nga jigéen. dafa war a xam ne jigéen la respecté boppam. njaw doguma la waxu télévision dafa doy waar dafa am lu sama xel ñëw léegi. waaw kii dafa meeting ba yeggal coono jàpp ko. Mm-hmm. mu laaj ay fauteuil am pour ñu delloo sil ko ko. Mm-hmm. bi ñu ñëwee fëgg ko di indi fauteuil yi fekk mu sangu ba génn taxul ñu wax ne moom noonu la parce que talu ko dafa takk ndiggam di dóor waar dëgg la di liggéey am leader am mhm. ba yàlla indi li mu indi dëgg waaye nag dama dañuy waxtaan ne comme dañuy jàkkaarloog ñu ñàkk sago dëgg la mhm. dem na ci partout ma nga ca société ba mu mhm. nga ca directeur de societé ba ma nga ca goro bi ci biir kër gi ndax man gis naa koo xamante ni jabaru doomam moo ko teree nelaw donc dañuy waxtaan pour jigéen ñi daal bu ñu waxee sécurité pour rey bi sécurité pour lii wax itam jigéen ñi nañu sengu comme rey léegi am na ci kaw boo woddoo rek romb leen ñu ne la rey nga la nga këlañ foofu la ñu waxee mais waxuñu ne cadre ndaw soosu la. dëgg la ma bàyyi la nga dellu fa nga. dëgg la wax nga loo am solo. waxu télé dafa dafa dafa jafe. dëgg la wax loo am solo ndax. Mm. Euh, ki nga xam ne lii ko dal dal na ko. Mm. kenn yéene ko ko. déedéet te it euh, ku déggee ni nga xam ne noonu lañ ko waxee ak ñi ko jige woon. Mm. di nga xam ne jigéen ju sàmmoon boppam la. Mm. waaye jàmbaar la mi ngi doon lutter pour réewam. dëgg la loolu moom moo tax. dëgg la mais du tere. poñet yi nar a taal ngànj yi. ñu wax ko ñu waxtaane ko. waaw ñu waxtaane dëgg la. jigéen ñi il faut que ñu bàyyi seen xel seen bopp. parce ki ni. ñaar ñaari ñii rek laa wóoloo bàyyi leen ci néeg mm. ñu ne ko kan mu ni ki nga xam ne dafa wàcc ci taabal ji léegi doon am doom mm. ci jigéen waaw ak ki nga xame ni teggee nañ ko ci taabal ji léegi mu xaraf ñaar ñooñu ñaar ñooñu rek la wóolu <laughs> wasin bees wasin bees ak kuy soog a duggalal kuy soog a duggalal nga xam ni yàlla Euh, maanaa sensibilité bi nag ci diggante góor ak jigéen moom xam na ko. yàllaa ñu ko gën a xam. parce que nee na bu ñu amee sept ans nañ leen séparé. Mm-hmm. léegi sax avant sept nañ leen séparé parce que phénomène yi ñu daba tax télévision bi bokk na ci yi nga. xam ne film yeeg yooyu yëpp dafay dafay tax xale yi teel a xam lu xew. portable ya yi réseaux sociaux yooyu yëpp daf ñoo dab. Mm. te suñu borom xam na lépp moo tax. mu teel ni bu ñu amee setan ans rek séparé leen. léegi fi mu ne de deux ans xanaa. léegi nag euh, wax dëgg yàlla li xew soxna Mbaye kenn xamul la la. gaa yi banaliser nañu affaire yi. yéeme na léegi moom daanaka am na ci yoo xam ne sax modd la. parce que it tamit yàlla jox la boroom kër ba pare nga wàññeeku di wut koo ca wengi wengal ca wet ga bu ñu waxee nga ne sama xarit la toog ak sa jëkkër bu sa téléphone ne kar nga jóg dem ba nële bu la ne koo doon woo nga ne ko sama soxla laay wax kenn du la xàmmee ndax jéeb guy sëy nga wala disket buy jaayu mais loolu yi tamit problème la te mi ngi ci réew mi. sol lu gàtt lu la neex sol ay góor jigéen ñoo xam ne buñ dee dox nga di leen di jaawalee ki góor kub seeni kawram wala ñu watu seeni nel takk nga ni jaaro parce que dafa am yoo xam ni dafa nekk ci réew mi da ngay dem ba Sénégal. du ko xam te te jigéenu Sénégal tey baas rek. tay baas rek ni mu jekki ak sër rek. ak ni mu jekkee nga nga mën a watu ba sa takk nga di jaaro. takki jaaro di koddi koddi watu sam nen sol ay suufes yu yëm fii mais kenn ñemewu laa tudd mais loolu yi tamit kenn xamul lan la mais am na ay xale yu jigéen yoo xamante ni boo demee seen kër ñoom ñoo gérer lépp lu leen neex la ñuy sol sol seen benn sorte bu yëm fii di jaa daagañ daagañ ñi ci kër kër gi kenn du leen tudd parce que am nañu far wu baaxu leen di may deux cent mille ak trois cent mille ñu di ci tuub paa bi wala di ci tuuf. di jënd saako ceeb day dem ba xale yi nga xam ne ñoo topp ci moom dañuy defe ne loolu lu lu jaadu. moo jaadu xale yi disket yi ci koñ bi yëpp fan la. parce que oto bu tooy moo lay wàcc yàlla boo ci am far wu tikkiwul dara nag boo xam ne jarañul famille famille dara mu yëkkati alal ju dul jeex jot la yëkkati caabi oto may la. nga ne àdduna bi foofu lay di naaw nga influencer quartier ba nga nekk influencer famille bi nga nekk parce que defante ngay daal di indi lu kaw ci famille bi nga ñëw dawal sa oto saw far am nga benn far fii am benn far fële. te kat sa yaay da lay tiitaroo moo ma ci jaaxal boo xew a amee nga ñëw yëkkati 500000 wala 300000 may maire bu bu jóg nga yëkkati 10 000 may ko ñun di diwa ngi fii toj fekk tojoo fi li nga nekke dara baaxu ci. njalbeen du dara mujj gu rafet rek a jar moo mat a ñaan. ñu jël kii ci ligne bi. Uh-huh. te bu ñu moytuwul mujj ga du baax allo. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si tur bi naka la. Tamba man la Aïssatou. Aïssatou. waaw. Aïssatou da nga bëgg a participer ci émission bi. waaw. yow rek la ñuy déglu. Eh, maa ngi nuyu kooku nga toogal sama mbokku pas-pas boobu. njaw ma ko du Samb waaw. di ko ziar bu baax. ndeysaan nañ la ziar. Tamba yi li ngeen wax ci dëkk bii. Hmm. Eh, xale yi yàqu nañ de. waaw. waaye tamit ñi leen yàq seen way jur yi ci lañ bokk. way jur yi. waaw ndax. ndax mënuñoo dangay ngay xëy di liggéey. waaw xale yi xëy di jàngi. waaw suñu wàccee bon bi lañu fay nekkal. bon yi. waaw bon bi. soo wàccee yow. liggéey doo tal sax toog waxtaan ak xale bi même su dee trois minutes sax boo xam ne fu mu mënti dem loolu wax liñ koy wax dina def si bopp bi mais yow yaa ngi wàcc préféré yor sa téléphone yaa ngi si whatsapp bi groupe bu jeeg ji nga bokk. paa baa ngi fee yor ordinateur am ku ne ngi nekk sa liggéey su guddi jotee nga tëj sa bunt xale yi tëj seen bunt kër gi am na wifi ñu ngi ak seeni téléphone lu leen neex la def seeni téléphone ba bët jot yow nag doom nag doom dangaa ñëw sama kër bëgg maa tituwaaye nii ci dëkk bi <laughs> nene tuuti ah yow dangaa ñëw sama kër ba pare ñëw di ma weer ci télé bi tamit loolu moo am de ah man xam naa ne man damay xëy bàyyi leen ak bon ya su ma wàccee maa nga ca whatsapp ba kër ga am na wifi xam nga loolu boo ko waxee yow da ñëw sama kër ne ne. <laughs> te xale yi suñ tëddee si ñii ak seen i téléphone xamoo li ñuy def si téléphone yi. dangay ngay xëy xëy dégg sa doom def na dara. day xam ak ximmali ko te fekk li ko dal yëpp yaa ko teg ñun la ñun la doom ñun la. am na xale xale am na âge boo xam ne su tollee war tayoo téléphone priorité bi yëpp mooy jàngi. dëgg la. mais xale day am 12 ans nga gën na ko téléphone bu toll ni moom. waaw. crédit du ko manqué téléphone bu mel ni moom macha allah. crédit du ko manqué lu soxla yaa ngi ci. dëgg lijjanti woo daraam su génnee xamoo heure bi muy jàngi xamoo heure bi muy wàcc. Hmm. su génnee lu ko neex lay def si mbedd mi. su ñëwee roy lijjanti sama doom élève la day jàng mu ngi lekk ba suur mi ngi naan ba màndi fi mu toll nii yaruñu de dañuy xont waaye yaruñu xale yi. jërëjëf Néné Tuuti. maa ngi wax nag. ma wax la benn mbir. Ah. yow am nga fi pañe. ah xam nga lu tax ma lay may pañe bi. ah bëgg laa dogale dóor la ba nga bëgg a dee ci tele bi ndax yenn dëgg yi kenn du ko ay yaay. <laughs> ndeysaan euh, wax na lu am importance wax am solo. te nañ ko nangu nag. dëgg la. xëy si na xale yaa nga ci kër ga xëy na bu ñu jàngiwulee. na sax bu ñu jàngee nag man euh, bu ñu jàngi jee bu ñuy wàcc ci kër gi lañ may fekk ndax euh, daanaka man une heure sama kër journalu 13 heures bi sama kër laa koy dégloo donc euh, sama kër la may fekk te aussi li mu wax wut wi fii ci kër gi xale bi nga wutal ko portable bu toll ni moom c'est réalité <laughs> mën na cee jàngee soxor mën na cee jànge néeg parce que isolé déjà rek isolé nga xale bi ci sa bopp. Mhm. pour lan wàcc naa bëgg naa nelaw xale bi jël na portable am mi ngi toog ci néegam mi ngi joué. Mhm. te contrôle parental bi defuñu ko ci portable yi. dëgg la njaw xale bi macha allah yàlla na ko yàlla la fal cat. waaye su ma dajee moom dinaa ko tucc tuccel ba mu nooy. <laughs> waaw wax na lu am solo soxna Mbaye gis nga eh, wifi bi ci kër gi sax. Mm. garaaw na naam ci xale bi. Mm. mais man am na beneen bu ma ci. mooy wifi yi ne ci kër gi te xale yi ne ci koñ bi seen kër a amu ko amuñu lu ñu jënd connexion da ngay romb benn kër. Mm. fekk lu ma trente xale. ci ci côté kii bi dañu fay nekk ba yenn heure yi mais. mais mais doo nelaw yow mi yor wifi bi yow mi mais nga fay ko. parce que tamit am na yenn heure yoo xam mais bu fekkente ni njaw dangay liggéey ci ordinateur guddi gi nga mën a liggéey ci sa kër. liggéey yi nga wàcc xale yi tëdd nañu rangé nañu ñëpp nga jël sa ordinateur teg def say programmation ci sa wàllu liggéey doo mën a fay sa wifi waa waaw d'accord mais soxna Mbaye am na heure boo xam ne boo fa toll wifi bi maanaam. te nag am doo koy liggéey. xam naa am na ku jàkkaarloog man naan lu leen jox code ba. am na application boo xam ne ci téléphone. da lay ubbil code yëpp léegi dégg naa. non xale yi moom loolu loolu moom wifi moom kenn mënatu ko tëjal xale yi moom heure boo ko tëjee am na fu ñu koy jaar. jëlee ko ko ci ligne bi Ndiaw. waaw d'accord man de xaw ma fu ñuy fu ñuy muccee. salaamaaleykum allo. waaleykum <laughs> salaam wa rahmatulah. Eh, sëñ bi noo tudd foo ñuy woowee. maa ngi tudd Maaw Diop maa ngi woowee Kaffrine. Kaffrine naka waa Kaffrine. ah a baax a baax a baax ñu ngi leen di ziar bisimilah. barki Serigne Touba dama kontaan ci yéen bilaahi. jërëjëf sama yumpaañ maa ngi lay ziar baax. maa ngi lay delloo ziar bu baax baax jarbaat. di wax waa waa Kaffrine yëpp ñu ngi di seetaan ñu ngi leen di ñaanal jàmm sax. ndeysaan maa ngi leen di nuyu bu baax ñoom tamit. Eh, mais sama nijaay jooju nag moom moom moom damay ñëw rek jéblu ci moom muy sama sëriñ ndax da ngeen waxtaane lu am solo. gaa yi kontaan nañ ci moom. barke Sëñ Tuubaa. Mhm. bilaay mais gis nga ray gi nii. Mhm. wax dëgg yàlla war nañ ci taxaw war nañ ci taxaw francement violation yi métti na rey gi métti na. te mhm. comme li wax sànq gis nga gis nga dogal suñu borom moo ko war def. mais dem nañ ba nga xam ne sax fu mu nii wóor na yàlla xar yi ak ginaar yi mu ñoo ñu ëpp valeur. mais pourquoi nag léegi mu ñoo teg solution bu clair que ni mën nañu génn ci situation yi métti yi nga xam ñu ngi koy dund. ah. mais kenn ñëmaatul ak dem fenn ñi kenn ñëmaatul ak génn kenn ñëmaatul sol lu rafet kenn ñëmaatul wàcc ci sa oto yenn heure yi sa mbedd sax am na heure yoo xam ko faa dox. waaw ah. kon ban Sénégal lañ nekk. moo ma jaaxal. ah mais bii nekk franchement ñi ñaan état bi taxaw ci parce que affaire yaa ngi bëgg ëpp loxo. dëgg la bilaay walaay talaay métti na métti na métti na mënatoo toog semaine boo dégg ku ñu rey wala ku rey boppam affaire yooyu. dëgg la. ah mais lii nag nañ ci wax problème mu téléphone yi nag comme ni ko xale bu jigéen boobu waxee sànq rek il faut que nag parents yi bàyyi ci xel parce que xale yi jàng nañ dañuy télécharger ay clip dañuy télécharger ay son dañuy télécharger yeneen ak yeneen en tout cas daal doy na waar doy na waar doy na waar moom daal jamono bi léegi wóor na yàlla xam naa li gars wax rek yàlla nañ yàlla yàlla nañ am ndimbalu suñu borom rek allahumma amiin mais defar xale yeeg tout tànk yi jamono yi du yomb lool de. ndeysaan wallaay doy na waar. <laughs> waaye nag euh, ñu ngi leen sant di leen gërëm ci waxtaan wi am solo yi nga xam yéen a ngi koy waxtaan ak dal gi ak xam-xam bi nga ne moom ngeen di waxee ci plateau bi ak képp koo xam ne jàkkaarloo yéen rek xam ne yéen a ngi koy teg ci yoonu siraatam saqima. ndeysaan di ñaan yàlla defal leen ci jàmm yàlla defal leen ci tawfeex li ngeen bëgg suñu borom defar ko jàmm ji ngeen bëgg Sénégal yàlla na ko yàlla defal Sénégal yàlla na merci beaucoup ñoom itamit kenn gënu leen a yaru kenn gënu leen a baax euh, te it nag teggin kese la ñuy duggee ci émission kër gi mosuñu fee wax euh, toj penc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di nuyu di gërëm bu baax ajaratu Ayda Njong mhm. euh, di ku baax yàlla dawal na mosuñoo tegante bët waaye macha allah disponibilité moom moo ma neex dëgg la mhm. ak lu mu mënti doon ak ci lu mu mënti nekk rek ajaa Ayda Njong boo ko yëkkatee téléphone woo ko rek mhm. dana la wuyu jox la respect waxtaan ak yow ñaanal la yedd la kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di ko ziar waaye waa di itam yal na jàmmam yàgg amiin amiin maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ziar ne na seen doomam ak euh, ndijaayam alaaji Mansour Mbaye léppam yàlla na leen fi yàlla bàyyi Adja kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax di wax ne buntu baa ngi noonu mën ngeen a wéy di ci jaar la temps que ñuy yegg ci minute set wecc yi mm. incha allahu taala rek ngeen rotal seen xalaat ci li ci réew mi euh, nekki nii ci réew mi jafe-jafe yi nga xamante ni euh, mi ngi am te dara waralu ko lu dul nag léeg-léeg éducation bi daf ci am part waaye nag demal wuti ji ndakaaru dara loo am naka la koy wutee ak lan fan lay jaar yooyu itam bokk na ci lii indi yu mel nii ñu jël mbokk moomu ci ligne bi njaw allo allo allo waaw. salaamaaleykum. allo. allo asalaamaaleykum. allo. aleyk. sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. allo. allo. voilà ñu ngi koy xaarandiwaat euh, bu baax euh, ci euh, émission bi su ko defee mu dugg rotal xalaatam. Njaw. Mhm. dafa am loo xamante ni. Euh, gars yi dañ ma koy demandé surtout ñu nekk ci dëkki Afrique yi Congo Gabon. numéro njaw laa soxla dama ci sonn lool. mbokk mbokk ngi noonu ñu jël ko allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sant yàlla bu baax tey ziar. alhamdulilah dañoo bëgg participer ci émission bi. mbaa tàngaay sa kër rek. déedéet ñu ne ñoo ngi fii kàddu di leen seetaan waaye daal suñu xol sedd na. alhamdulilah bisimilah. man mu woote ci télé. ndeysaan. Hmm. waaye nag li ngeen wax rek moom am. jërëjëf. nit daal ba nit. allo. oh, oh. allo oh ñu ngi koy jégalu bu baax a baax mbokk moomu mu ngi soog a dugg tey ci télévision waaye suñu sañoon dégg xalaatam waaye yoon yemul ci benn wala balaa émission bi jeex mu mën a xëcc ngir duggaat indi li nga xamante ni moom mooy xalaatam. Hmm. njaw ñi nekkee Congo. Hmm. Gabon. ñu ci bari dañ may naan njaw par message whatsapp njaw dama bëggoon a am numéro ndax li muy waxtaan ñenn ñi yéen a bokk pas-pas mm. macha allah ñu ñu ñuy bëgg di am lante yow xam nga sama numéro mooy ceebu mbootaay waaw 534 91 85 moom la tane ñëpp eh, sa numéro lan la yow 736 77 736 22 77 736. 22 22. 99 77 736 22 99 képp ku bëgg a jokkoo ak moom nga jokkoo ak moom. Mhm. su ko defee ci xeetu waxtaan yooyu macha allah dina la ci waxtaanal uh, lu am solo. Mhm. wala nga koj ko ci Alburax FM ca rajo ba ca Tiwaawan. macha allah mu yor ko di ko doxal doxal bu rafet. Mhm. ñu ciy nuyu waa rajo ba yëpp rawatina waa Tiwaawan sama tooma mbay Guèye bu ma jaañ Guèye ak Ken Mbow ca Tamba. fàttewu ma sama yaay ji ajaratu Ndey maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko ñaanal jàmm. njaw yaakaar naa ni dañuy ñëw nag euh, ci octobre rose la ñu nekk. Mhm. jigéen ñu ci bari am feebar ñu koy wax feebar ween. Mhm. Mhm. mais nag ca noona la leen seen jëkkër gën a mën a abandonné góor ñu foog nga waxal ma leen dara nag. dëgg parce que nag loolu dafa ñaaw ànd ak nit ba mu mën. ca ba muy mën. mu dem ba tële nga def ko naka sudul noonu. mën naa indi jeexi jaaxee xol ba. mu metti dëgg la euh, soxna Mbaye du du ngor. Mm-hmm. du ngor mm-hmm. ndax eh, am na loo xam ni mm-hmm. su ko diine mayoon sax ngor waru koo nangu dëgg la waxanduma la ak bi ko diine dàqee eh, nekk nit ki muy man di la bégal daan la toggal di la sañseel di la defal lépp nga dem bu bis yàlla dogal mu feebar nga man koo ab du ngor dafa am eh, benn nitu yàlla bu mag mm. boo xam ni dafa am bis doom yi dem ci seen ci rakkam mm. di ko di ko di ko di ko kalaame moom ni ko sam papa fàgguwul dara mm. ni ko tey jii bu bu génnoon àdduna rek boo moytul nu torox léegi papa ji jun seen papa bu ndaw ñëw ci moom nag di ko yedd di waxtaan moom ni ko nit dafay am yitte ndax boo amee njaboot danga leen di waajal. Mm-hmm. li ma ci mujj euh, wax rek boobu moo ma ci intéressé. Mm-hmm. mu ni ko nit dafay am yitte. Mm-hmm. soo nekkee ak sa njaboot. da leen di da leen di préparer pour ëllëg boo fi jógee. dëgg ñu mën a am ci lu ñu téye. papa ji ni ko waaw ni ko boo demee ci sama biir kaaw yi. mu ne ko waaw mu ne ko am na ay musawadaat yu fa nekk maanaam ay bien mm. yoo xamee ni benn objet bu ñu ci jëloon bu ñu ko jaayee mu dund leen at hmm. mu ne ko waaye hmm. amal foo yem ak sa njaboot pour bañ ñu nasax hmm. mu ne ko am juróom-ñetti at a ngi nii maa ngi ame jàngoro ju ñuy wax sudaar te fii ku fi dee moo la rey te pourtant ba léegi ruus naa yàlla yëg ni seen yaay yëg na ko. ndeysaan. mu ne ko fukki at ak juróom a ngi ne benn bët laay binde bi ci des gisul dara. Mm-hmm. te naa ruus naa yàlla yëg ni seen yaay yëg na ko. Mm-hmm. kon nag amal foo yem ak sa njaboot pour ñu natax pour ñu bañ a nasax. Mm-hmm. boobu moo ma ci intéressé. ci nekk kilifa. nekk ci kër. am feebar boo xam ne tey bu ko sa waa kër yégoon seen waa kër génn àdduna nga am personnalité man ko gérer. gérer gérer. isan gérer it nattu yàlla bu wàcc ci yow. ki am mm-hmm. soxnaam. Mm-hmm. te yàlla dogal ci moom feebar. Mm-hmm. feebar booba yàlla indi ko nga war a mën a dalal xelam soxna Mbaye bokk na ci liy jëkk faj nit ki. waaw mooy nga defar moralam. léeg-léeg nit ki feebar ñëw ci yow. Mm. nga am noo waxeek moom bu feebar bi nekkoon cent di ko def cinquante pour cent. day woyof ndax façon bi ngay dalalee xelam moo tax euh, sunu mbokk yi nekk ci hôpital yi. Mm. kenn du leen jàngal seen métier. Mm. mais seen accueil bari na ci lu ñu war a defaraat. muy lu am solo mbokk ngi noonu ci ligne bi ñu jël ko rek en une minute euh, dellu si waat dalal sunu gan ci seen minute set wecc ñu ànd ko ak waa HD industrie mbokk allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw dañoo bëgg a participer ci émission ñoo duggoon léegi génn. ayca ayca bisimilah sama sëriñ. waaw man dama ne damay wax ne li ma gën a jaaxal ci mbir mooy droit de l'homme. mooy. droit de l'homme. droit de l'homme. droit de l'homme. da damaa gis ne nit ki rey mooy l'homme waaye ki de la droit de l'homme mort bokk ci. déedéet damaa gis ne bu ñu nee nit rey na nit. Hmm. ñu taxaw défendre ki rey. dëgg la. waaye ki ñu rey moom. bokkatul. Hmm. bokkatul te dama gis ne am na benn nit boo xam ne ci société bi. Hmm. moom jaruñu boppam jaruñu ay waajuram. Hmm. njaboot sax moom jëmu ko pro programme. fekk nit ki nga xamante ni dafa yor ay nit yor société yor njaboot di leen liggéey di liggéeyloo ay nit di leen fay. waaw. kooku sañ kaaray. ñu défendre kooku te duñ défendre ki am njëriñ man dama yaakaaroon ne xañ na bu ci yàlla waxul woon sax xalaat war a jëm ci ne kii comme amalu société bi njëriñ amalu ko boppam te day lore rek jëlee ko fi moo ëpp njëriñ société dëgg la wallaay dëgg la te al alxuraan dañ ne man xatala muminan hamdan hmm. foofu ma waaw mooy naar dëgg hmm. boo reyee nit ak ci jub ji te tey ko hmm. safara mooy sa kër dëgg la waaye nit nag ndax ndax mën nañu ëpp yërmande yàlla. Hmm? ñoo ko ëpp yërmande ma na ñun ndax mën nañu ëpp yërmande yàlla. Ah, dëgg la wallaay dëgg la. moo tax ma ne suñu wax li li yàlla wax daal suñ ko defoon. Hmm. rey nit moom jeex fi. mu jeex fi tàkk. waaw waaw mu jeex tàkk de li yàlla wax rek buñ ko jëfandikoo rey jeex. am na solo mbokk. njaboot gi nag it nag. li hmm. xale bu jigéen bi wax léegi rek moo ci ne. wallaay. xale daal bu fekkente ne bii dafa toll ci yar dañ ko yar. dañ koy yar. mu toll ci jàng ñu di ko jàng. Hmm. ma dama ne sama doom. Hmm. tel portable doo ko yor amoo bag. doo yor portable. te amoo bag. te amoo bag. très bien. li ma xam daal mooy loo mën di def portable lu jàmbur sax su ma la fekkee nga di ko yorlu. Hmm. dinaa defante yow waxuma la yow nga ma di la ko jox. am na solo. nañ góorgóorlu ci njaboot gi yaraat leen. bu baax. ndax kat comme dañ ne doom dina dem bàyyam dem ba war a bugg a doom dina taxawal ba yàlla eh sama papa moo ma giidewul woon moo ma yarul woon moo ma xamalul woon. Mm. dama yaakaar ne nag àdduna ko fi nekk bëgg nga àjjana. Mm. wallaahi. nan wut àjjana ci doom yi. am na solo wallaahi am na solo. jërëjëf am na solo bu baax a baax a baax affaire bi du ñun yéen la ndax yéen a ñuy dolli macha allah boole ko yar ak teggin ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di leen jaajëfal waaye nag euh, la nga wax sànq ci hôpitaux yi la fay xew euh, bu Philippe Maguilagne Senghor bokk ci ndax maa ngi koy jëkkee ci docteur bi nga xamante ni moo ko jiite muy docteur Diop maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar organiser na hôpital ba Euh, ki nga xamante ni moom mooy Mado nekk sage femme wala madame Mbeng nekk sage femme ak équipe ba yëpp. Mhm. macha allah la la la lañ leen ci hôpital ba attanuñu ko dem ba ñetti wasin mhm. di bokk benn lal. Mhm. ñetti accouché laa la wax de. ak seeni liir di bokk benn lal. mooy que ne hôpital la boo xamante ni euh, mën naa ne euh, lu ëpp ci caver yëpp. fa la ñu dëgmal donc jar na bàyyi xel bu baax a baax ñu ci interpellé suñu ministre de la santé. di wax ne maireem ak maire yoof ba mii fa dox. mais meereem ak hôpital ba mii dafa dox mm-hmm. donc mën naa xam la fa nekk te mi ngi def liggéey bu am solo ci biir Yoff ci cet ga ci taxawu kilifa ya ci taxawu lépp loo xamante ni dafa jëm ci askanu Yoff waaye nag hôpital ba doonatul hôpitalu Yoff kese hôpitalu Cap-Vert gépp la kon Diouf saar ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu première dame am maam Roxoye Cuun Baye Xaali di ko ziyaar bu baax a baax di kontaan ci moom di wax ne rek affaire baa ngi noonu daal nañu bàyyi xel bu baax a baax hôpital Philippe liggéey ba am na solo lool njaw yaakaar naa ne euh, dañuy dalal sunu gan gi nga xamante ni moom la ñuy àndal ci minute euh, set wecc bi waaye laataa muy toog moom rek dama lay bàyyi ak kàddu gi daal ci ngor gi nga xamante ni moom nga doon wax war a mën a dox diggante góor ak jigéen numéro yi parce que ñu ngi may and envoyé message di ma wax ne njaw na joxewaat numéro bi jotuñu koo jël te man mënuma koo génne dëgg la mhm. euh, jërëjëf euh, Soxna Mbaye euh, numéro bi 77 la 736 22 99 77 736 22 99 Soxna Mbaye gore dafa am solo gore gore mhm. ki nga nekkal mu daan mhm. la bégal di la toggal di la sañseel muy rafet mu dem ba yàlla indi feebar. Mhm. war nga ko accompagner nag. dëgg la waaw war nga ko accompagner. dëgg la bàyyi ko xel dalal xelam. Mhm. xam ni yàlla mi nga xamee ni moom moo ko teg feebar mooy joxe wér. Mhm. te lépp loo xam ni. sunu euh, doomu aadama bi am na ko suñu boroom daf ko ko abal daf ko ko dénk rek. waaw daf ko ko dénk. dëgg la bëccëg mën naa ñëw. mu nangawaat ko. bëtëg mën na bëccëg mën naa ñëw mu nangu. kon mayewul dara dafa able. Fatou Gueye way na ko. Mm. kattan gi ndénkaane la. taar bi ndénkaane la. ak xel ma xel mi ndénkaane la. Mm. lépp ndénkaane la. léegi nag su fekkente ni yow. Mm. dem nga ba ki nga daan àndal noonu nga xam ne noonu la ko yàlla defal mu indi feebar nga ne dama koy abandonné abandonné woo sa jabar sa bopp nga abandonné. parce jabar dafay genn wàllu doom. Euh, euh, dafay genn wàllu góor. dëgg la loolu il faut que ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ci jigéen ñi nga xam ne yàlla boole na ak seen boroomi kër. Mm. yàlla dogal ñu feebar. Mm. seen borom kër yooyu nan leen assister nan leen accompagner. d'accord dalal seen xel. Mm. dalal seen xel waaye nekk nit di ko mënal ba xëy feebar dab la nga abandonné ko. boole kook ni ko sax damaa bëgg léegi nga nga dellu sa kër yow sa kër yaay loolu loolu du ngor mu toppatoo la faj la waa loolu du ngor loolu du ngor gars yi nañu nañu bàyyi xel bu baax a baax ci vraiment ñi nga xam ne ñooñu ñoom la leen yàlla dénk képp koo xam ne nekk nga ci soxna mu feebar daal na nga ko bàyyi xel bu baax a baax te nga assisté ko bàyyi ko xel di profito di nuyu bu baax a baax nag sama jigéenu bopp Sata Ndiaye Sata di jarbaatu Cheikh Adjibou Soumaré Adjibou Soumaré waaw di jigéen ju baax ndeysaan Fatma Gido ma nga ma nga ci Tiwaawan ñaaru Samb yaa booy Ndoye. waaw ma nga euh, Sata Ndiaye. waaw ma nga ci Tiwaawan moom itamit di def lu baax. lu am solo ak magam ami Kolle ku ñu tànn dimbali na leen. ndeysaan maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Gilles Fall. Mm-hmm. di sama yaay soxna Khady Soumaré. Mm-hmm. ñu ngi foofu ci HLM route de Dakar ci Tiwaawan. ndeysaan di nit ñu baax. ndeysaan soxna Mbaye daal gars yi nañ bàyyi xel jigéen ñi. Mm. jigéen ñooy sunu yaay. dinañ ci ñëwaat di sunu xarit di sunu lépp euh, loolu la ñu taxawee eh, wax nga dëgg maa ngi nuyu bu baax a baax Sata jot naa ko démb téléphone mm-hmm. euh, di nuyu yaayam Khady Soumaré di jigéen ci euh, Cheikh bu Soumaré sunu ndijaay jooju nga xamante ni wax dëgg yàlla dugul ci famille bi rek fàkk ko mu dib doom te macha allah tubaarkàlla euh, ñime na fa mu jëm kon euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom Cheikh Hadjibou Soumaré nuyu soxnaam nag Fatma Giro naaru Samb yaa boy ni ma ko waxee rek doom ci ajaratu Mati Diop di sunu yaay moom itamit di lépp yàlla na àllaaxira doon na flaayam nuyu ci aram Giro bu baax a baax a baax sama umpaañ jooju nga xamante ni yàlla doo ko booleeg sama nijaay mu bokk ak uh, sama yaay ndey baay te nag ba mu toogee ba tey jógul te dafa sedd kar dafa lawet bi mu fi dikkee ba tey wexut noonu ko taasukat yi waxee mm. looloo daal aram giro kon yàlla na sa jàmm yàgg mm. uh, mbokk ma daal. waaw salaamaaleykum. nuyool. ñu ngi nuyu askan wi yëpp. Mhm. di leen jaajëfal di nuyu waa 2STV. waaw di nuyu bu baax a baax. su ma njaw ma kodd ma mhm. ba léegi ñu ngi koy déglu. Mhm. parce que mu yor lu am solo luy jëmale askan bi kanam. di la nuyu yow bu baax. yow nga xam ne yow yaay sunu jaatige fii. waaw di nuyu bu baax maa fi teewal HD de. dëgg la yaa fi teewal askan HD yaa ngi def liggéey bu rafet. jërëjëf parce que boo fi teewalee HD rek. daal ko teewal nga fi HD li ko a mm. mm. mooy. set ak civilisé. Mm. te dafa bokk ci li xam ne mooy ponk jaamu yàlla yi. parce que doomu aadama. boo setul sa jaamu yàlla lu mën a mat. dëgg moo tax ñu di produit am solo yi. ci mel ni li xam ne mooy dentifrice Mera. Mera bi nga xam ne boo koy broso moom yaakaar naa ne sa alaaj du mer tey meera nga jël nii de waaw meera moo nekk ne le mhm. bee mooy pâte dentifrice bi waaw mooy pâte mhm, mhm. boobu moo ànd ak li ñu naan système flore flore ah d'accord li ma ci jaaxal mooy meera da am na bu mag am na bu ndaw waaw boobu waaw cest mooy bu mag bi mooy bu mag bi bii moo teel ko gars yi waaw bii mooy pâte dentifrice meera waaw bii moo ànd ak li ñu naan système flore. Mhm. parce que mooy tax say bëñ di nees na si. Mhm. ànd ak it ànd xet bu neex. Mhm. parce que mbayang da ngay wax tout le temps sa moromu jéeg yi am solo. waaw parce que kii dafa baax ci li nga xam ne mooy jéeg parce que jéeg daa war am xet bu neex ci jéem. waaw waaw waaw moo tax ma daar créé lii. jigéen bouche jigéen merci beaucoup. moo tax mu créé lii mu ànd ak ci biir nag ak brosse. ah d'accord pat la ak brosse. pat la ak brosse. maanaam deux ans na. pat la xam nga damaa dégg nag mhm. ndax waa HD kuy ànd ak ñoom da ngay dégg dëgg la moo tax ñu wóolu la ànd ak mhm. yow ndeysaan te it da ngaa nekk ci kër gi waaw te bu ñu nee kër gi moom ne taaw waaw madaar mooy taaw mooy njëkk a judd ko baax la moo tax ñu indi leen kii nga xam ne mooy Mera Mera di jël 600 ci bidig bi mhm. am na aussi bu ndaw boo xam ne pour xale yi la ku ne xam ne jamono neexul waaw moo tax ñu indi leen bu ndaw bi dafa la ko à 300 francs ci bidig bi donc kese te bii boo ko waaye Madar yemul foofu. Mhm. daf lay indi li nga xam ne nii mooy Renzo Madar. xam ne nii mooy taaw ni ma ko waxee. Mhm. ku ne xam ne taaw ci kër moom mooy dogal. dëgg la waaw nag am na ñoo xam ne ñu ngi roy mais nag roy dundu roog piir. la nii laa mel jarta dem jàkka da jarta giñ di waat. loolooy dëgg booy def te a nu xam. loolooy dëgg waaw. waaw akay dëgg. nii laa mel. nii laa mel jarta dem jàkka jarta giñ di la wax nii ah sama rakk ji na ma xam nañ. waaw ba pare noonu waxal 2STV mm. nee naa leen seen télévision yi mhm. nii laa mer jarte dem jàkka jarte giñ jiwaat booy def rek te taa bàyyi noo mën a nu xam moo taxit daguma la waaw waaye moo taxit jéggi taamu ko moom ren sama daal jéeg dañu bëgg lu baax waaw moo tax kër jéeg <laughs> mais man li ma wóor ba wóor man su këng këng sa biir kër mm. danaa fa fekk ma daal parce que yow jéeg piir nga boo ko waatee doo lakk non man xam naa loolu mais dama mujje découvrir bii. bal la ci bii. mu mu yàlla sama waa kër ñu ngi may fekk may. ñu ngi may seetaan. may wax. Mhm. man bii dama ci miir. waaw kii mooy nuura Noura bi man dama ci miir. Noura ak Renzo Madar daanaka ñu bokk ndey ak baay. kii mooy buur antidétergent yi. ñi nekk ci li nga xam ne mooy Renzo Madar. moo mm. nekk ci Noura parce que ay seex lañ. Mm. waaw kii ak Renzo Madar ay seex lañ. société HD industrie bu liggéey bii mooy liggéey bi mhm. waaw lu nekk ci bii moo nekk ci bii kon tey boo demoon ne jaay leen ma madaar ñu jaay la bii bul wax ne bii du madaar non non mën nga jënd bii parce que bii madaar moo ko liggéey waaye na xam nga lu ma jaaxal sama sëriñ daa am secret bu ci nekk waaw loolu am na parce que kii nee naa la bu fekkee faute raxas ak mélange mooy na ma won mooy numéro un parce que bu fekkee da ngaa faute xam nga faute dafa yomb waaye mhm. faute bu set te gu neex moo jafe kay xet googu laa bëggoon nga neex nag kii moo ci mën ndax kii dafa ànd ak xet goo xam ne xetu citron dama la doon bëgg wax ne la lingom ji ci biir dafa am effet bu mu ciy def waaw dañoo nekk dama lay tàngaay tey ku xam ne nawet bi citron da cee baax mais boo fóotee sa yére xam nga da ngay fóote sa yére génn ci tàngaay bi nga ñaq nga sañse ñaq bi daal di koy am jox xet goo xam ne ni maara détaillé mhm. kii nag boo koy fóotee sa yére boo génnee boo ñaqee ñaq bi ndox euh, yére bi dafay naan li nga xam ne ni ñaq gi ndax xet ko bu neex bu mu àndal waaye yemul ci loolu de. ci lu muy def nee naa la bu fekkee nii. Mm. njàpp loo xam ne daal ñu kuk. Mm. ba mel ni ndeysaan maara de taale. samay ndab rek. waaw ndab yoo xam ne xam nga ndab bi am na yoo xam ne nii. Mm-hmm. tooñ ma leen sax sama mbokk géwél yi. Hmm. xam nga maa samay ndab rek. waaw géwél yi ñoom seen faral di tooñ ma sax ah, samay. ndab bu ko wax nag yow it waxal rek yow it nag ah. waxal loolu la xam nga seen ndab day faral di ñuul. <laughs> géwél yi ñuy toog waaw kooku nag kii moo ci mën kii moo ci mën. kii xam nga ñun suñuy ndab faaw mooy set parce que dañoo dégg ñu ni ceeb bu neex géwél. waaw dëgg la parce que yu baax yëpp mooy loolu. parce que lu waral loolu. mooy cin dafa yàgg ci taal bi. te bu yàggee ci taal bi mën na ci jëlee ñuul ñuul gu metti mm-hmm. ñuul ñuul gu metti googu li koy dindi mooy kii. Mm-hmm. dëgg la li nga xam ne mooy Renzo Madar. Mm-hmm. Renzo Madar boo amee cin loo xam ne dafa ñuul kuk. dafa yomb da ngay dëpp sa cin ibi tuuti daal di sotti ut sa mbomb bomb mu weexaat tàll kooku Renzo Madar mu ci mën. ma ma bàyyi la nga marqué benn pose tuuti ma bàyyi njaw mu am loo xamante ni daf ko ci sànni moom itam. waaw xam nga lii dafa am solo. Euh, set wecc mhm. ana zaafatu minel iman la ñu wax mhm. set mooy plier bi nga xam ni ci la nit ki di toog mhm. xam nga li wolof di wax jastandiku bu may jóg nii jastandiku mooy plier lislaam l'islam da ngay set bala avant tout bala ngaa julli bala ngaa def loo mën de bala ngaa jàng alquran lépp lépp da ngay set kon nag ñii bu ñu ñëwee di doomu réew mi waaw contribuer ci réew mi jël doomi réew mi wàññeeku bëgg a setalaat réew mi. ba pare nag boole ci njaw wax naa leen ko bii passé jënd ay fourniture fay ay inscription ndax vacances yëpp xale yi dañu dem HD industrie. ñu jox leen ay journée ñuy dem di liggéey di ñëw di dajale seen weccit. di dajale seen weccit école tijji ñu dem inscrir noppal seen ndey jënd ay fourniture noppal seen baay. yeggalal xam nga loolu dafa am solo. waaw maanaam contribuer ci sa réew. dafa création d' emploi. waaw bu jël doomi réew mi yëpp. Mm, mm. di leen di leen jox ñuy delluwaat ci seen gën dëgg la dafa am solo. Mm. bi ci des tamit mooy. mooy wàllu wér. wér que set mooy mooy cosaanu wér. nit ki bu bu bu setul rek. pour nga pour nga wutal ko wér du yomb. du yomb environnement bi nga xam ne nag mooy seetu doomu aadama. boo ñëwee war koo setal. ci di ci def yoo xamante ni tey boo jëlee madaar bi man ci fóot man cee raxas man cee ménage si kër mm. wax dëgg yàlla dafay am solo te man nag bokk na ci yi ma ci gën a saf mooy mooy euh, eau de ak bële ak euh, déodorant bi man daal fi mu nekk nii sama kër appartement bi boo ko jubee rek man ma man déodorant bi déodorant bi li ma ci metti mooy heure bu ma ko tegee ci kër gi ñu sàcc ko waa rédaction danañu sàcc yóbbu kooku mooy lavande moo fay day sàcc yóbbu déedéet mooy lavande bi waaw boobu kii boo koy jëndee yéen dinañ ko yàgg sàcc parce que xet gi moo tax. moo a jaaxal li ma boo ko jëndee boo piisee pare tëj sa asmaan. parce fii li ci taabal ji ma koy teg fii di ci liggéey. Cheikh Diaby war na koo sàcc. non Cheikh Diaby moom du yoon. kon yónnee leen ko bosom. non moom xanaa ab célibataire la wala. moom daal da koy sàcc pour bureau. moom de ko yónnee bii Cheikh Diaby dina leen recommander ngay jël euh, li nga xam mooy baxuur bi baxuur bi parce que yow dafa mel ni tropique bi rek nga gis la vente mais am na li nga naan baxuur moo nekk nii. baxuur bi moo nekk nii baxuur boobu mooy bu aawo yi. lan ngay jeexalee parce que temps bi jeex na taamu. Mm. te saytu nañ ko saytuwaat ko xam nañ moo gën ci askan bi. Mm. lu ko dalee picc. Mm. tànk yi faral di dagg ak wéy teggeeku moo ci mën. nee naa la bu fekkee da nga am ndoxu bi gën ci yaram. nga koy pilier ak ndox nga sangoo ko picc picc yaram kasaale ko ku ne yaram buy xasan waram bi xasan ku ne mm-hmm. xam ne dañoo nekk jamonoy tàngaay mm-hmm. jamonoy tàngaay Euh, picc da lay yomb. da ngay yomb da ngay dugg ci tetaay yeeg bis yi kenn xamul. Mm. nga laal nit ki nga allergique ko. Mm. ko defee sa yaram am picc. Mm. kooku boo bëggee tàqali ko moom sa fas yi da ngay ubbi kii boo jëlee li nga xam ne mooy ñaari goutte sotti ko ci tollu un litre. goutte rek waaw ñaari goutte rek ñaari toq rek. ba nga jël kubéer gi bu nga bañ a ëppal li nga xam ne fekkee potu ndaa. moom nga jël ñaari goutte fekkee aussi li nga xam ne mooy. sio bi ngay sangoo nga def kubéer nga jël kubéer. léegi nag nga jël nga boo sangoo ba lépp daal koy jël fekk aussi da am li nga xam ne tamit mooy tànk yi comme wéy teeral di teggeeku mhm. ba tey coton rek ngay jël liyeeko ak ndox daa di koy cot di ko nettoyé fa nga xam ne fa la tànk yi wey yi maanaam. wey waaw mais. mu am jàmm weextal bu fekkee tamit gaa am na solo waaw dagg-dagg bu bees dagg bu bees. bu fekkee da ngaa bëgg ndeysaan. bàyyil parfum yëpp merci beaucoup. bàyyil alcool baag yëpp jëlal jetol kii moo ci mën. Mm. waaw kii ngay jël nag daal di ibbi jël sa coton daal di koy nettoyer ba mu la jañ. jërëjëf waaw di remercier bu baax a baax. da ngaa sàcc film bi day dàqe weñ itam. waaw merci ak yoo. man kay du ma waxantu. waaw bu fekkee aussi faute noonu la ci mën tamit. na ci yoo kii. waaw mën na ci faute. yoo de xam naa ne guddi gi man sama kër bariwul yoo waaye weñ moom añ nañ ba pare weñ ñi commencé kii jëlal def ci ndox mi ngay fobeeree rek jërëjëf waaye aussi euh, temps bi jeex na tàkk temps bi jeex na tak parce que générique baa ngi dugg xam naa ni euh, Madar Bakhour dinañ ci ñëw incha allah semaine prochaine waaw di remercier bu baax a baax ñoom ñëpp ñu ngi leen jaajëf jërëjëf ñu ñu envoyé fii waaw di la jox sa cadeau di la wax waa Madar ñoo la may loolu montre boobu montre bi yete di la jox aussi tamit waa peñe yaa ngi ñàkk liggéey ak moom wóorul donc ñu koy gërëm bu baax a baax waa Madaar di gërëm mbokki téléspectateurs yi ñu àndaloon waaye nag di leen wax ne leen sàcc si nga xamante ne dañuy sàcc ay Madaar di ci fobeeree ko fóot bii moom ku ko sàcc ku ne feeñ ndax xet ga dana fa def 12 euh, heures de temps yoo xamante ni du deñ euh, donc ñuy gërëm bu baax a baax waa HD industrie bu baax euh, montre yu baax yeeg yaa nga fa waaye bagage yi ci boppam gars yi nga xamante ne dañuy ànd ak émission bi dañ am ay cadeau donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant rendez-vous incha allahu taala lundi prochain ñu Euh, ci beneen tomb waxtaan wala même thème bi euh, waaye d'ici là ñu bàyyi leen ngeen wéyale seen seetaan ci programme mu 2S sama xale ba réer foo de mu ndaw fàtte naa ko maa ngi jégalu bu fekkee Ousmane mun na ma ko may Ousmane ngir yàlla ak yonent bi xale bi dafa reer Fodé la tudd ñu ngi ko tuddee Fodé Sarr bu dina ma neex dafa réer ay mbokkam nag képp koo xamante ni xam nga dara ci Fodé mi woo ko ci 78 460 52 52 78. 460 52 52 Fodé Sarr mooy turandoom moo ko yoroon xale bi dafa réer.